Eh, juddu woon na coowal xar géej gi ak ki nga xam ne moo ko fi indi woon muy Kunkande finalité bi ak it li nga xam ne yëkkati na ko ci ay kàddu xam ni responsabilité bi askan wi waroon am ci nekk nit ba considérer wala bañ a considérer ay kàddu moom la askan wi amul moom daal dafa gis ni daal nee na lu ëpp ci Sénégal daal fi ci waxam ji la xamee ni amuñu bopp daal maanaam ay dof yu gën a bari jamono ji kàddu yooyu nan nga ko jàngatee ak finalité bi ak ko jàngatee mooy am nañu bopp dañ ko doon fooyee moom dañ ko doon fooyee dañoo xam ne yëfu xale lay dem day aay ñu gunge ko aka ñoo way dañoo xam ne wéyul ñu fekk ko ci wéye dem sunu sit yi di ko jël ñu am ay wii rek di ko fooye di ko fooye Serigne Cheikh nee ku ñëpp di fooye sa ndey bégul wallaahi waaye ka ndeyam fa bég piir mooy góor piir ku am jom piir am fulla piir xam la mbëgg piir xam na mu koy amee mais kii fokkat la moo tax xale yi di ko këll këllëkëlee sénégalais yi amuñu bopp ak ñoo woy dañoo yëg sa woy xanaa xamoo senegal sooy dof doflu ñu dofloo la waaw la Sénégal booy dof doflu nii dañ lay ràngati nga dof ba doppapoor dañoo xam ne wéeroo ñu këlëj këlëj jee la rek yow yaa ko gën a xam xam nga ne wéeroo moo tax ñu mbale mbale jee la waaw loolu la Sénégal am ak ñoo am bopp. Hmm. Sénégal yi ñàkk bopp. Sénégal yi nga xam ne réew moom dem dañ koy moytu. Hmm. ah oh, dëgg ndax xel mu rëy. ak xel mu rafet. di hmm. sénégalais da lay xamal lépp mel ni ku xamul dara ah <laughs> Pulo yaa xamul dara sénégalais. mën a dund ci yow ba ba muy dee te doo xam li ko indi ci yow ki xamul sénégalais muntaxa sénégalais mën nay dund ci yaw comme aw yoo di dund ci yow ba ba ngay dee te doo ko xam moo ñeme yàlla ñoo la gën a way foofu dañoo xam ne yemboo ku yembul da koy def lu yëfi yembadi waaw ñu lay këll këll ku xale yi yuuxoo koy yemboo. <laughs> dëgg la am déet mu ne xale mu ne Sénégal yeewu ci xale yi di ko yuuxoo ku ñuy yuuxoo looy wax lan lan ngay wax man wax naa leen fii ba ngeen ma ko wax may leen waxul lu am. maa leen ko wax bi ngeen ñi may leen bàyyi leen wax yooyu. du xar dara du xar tus. bu amee xaal. Mm-hmm. na ko xar loolu laa leen waxoon. du xar tus ma ne leen walla mu toxalal ñu ko boog yéen ngeen dem am fa ay kër ma may leen ko am déet moo dara la xarul yow kay yaa woyee di waaye sénégal yi ak ñoo woy sénégalais waaye yowmal xiyaam doo ko dégg loolu lay wan loolu lay indil woyee di mais oustaz ndax dañu war a bàyyi tamit mu war a nekk fait social léegi bu ñu demee ba nga xam ne nii woote yonent dégg nañ ko fi déggaat fi léegi woote wilaya loo xam ni certainement ci mag ñu baax ñi la jëm quand bu ñu ne nit koo xam ne dafay woote wilaya ay xaj géej ak yooyu dañu war a bàyyi rek mu màgg nekk li nga xam ne moom la tubaab yi di wax fait social wala jaadu na quand même yéen jàngalekatu diine ngeen jël si seen responsabilité déedéet duñ ko ci parce que xam nga lu tax amul solo boo ko amalee solo daf lii noo waxtaane yéen ku ko seetaan jëriñu ci mag mu ñëw di waxi waxam ne xaar ko ca bés ba man noon naa leen xaar leen ba asura ah moo dawul daa wëqande ku nga naan daa daw wëqit la def yooyu yooyu day dara ay ana fi doon woote ca boori Kolda xaw ma Casamance yeneen fuñ mujj ñu koy tudd ci jigéen. Hmm. du foofu la ñu mujj. laala laalaake rek. Hmm. léeg nga weeru ah. après prison. mu ngoog fa hmm. waa ne na kaso la mujj. mu nga kaso de. mu nga kaso. yónent lu muy def kaso. <laughs> ab yónent lu muy raasaatu. waaw mu ngoog. xabaar am man sóor la. li nga wax la. ngelaw luy jàlle la rek. parce que lii mënta ñàkk ci jamono. il faut genre yii di génn bëgg ñu xam la kenn xamul nga bëgg a fés mais bëgg a ci njuba di baaxul sooy fés da ngay ci lu baax xanaa xamoo ne léeg-léeg nga gis ko saaga bëgg bàmb mun taxaa ko saagaloo dañ koo neexal nga am ci noon ci moom du ci feeñ man kenn mënumaa def loolu la nga bëgg maa bañ aka sénégalais yi yeewu dañoo xam ne ki amal affaire ab aay kër la kuy aay nag tàcc ko rek am déet kuy aay tàcc ko mun taxaa boo ko tàcc mu nooy def waaw kuy aay ko rek